loo bokk ak baayu xale bi. ñoo baay. xale bi bi mu réer léegi wala bi ñu ko sàccee ak léegi ñaar ci to fan lay doon. lundi lañ ko jël lundi. uli lundi si suba lañ ko jël ay boru 10 heures 9 euh, heures 10 heures moyen daal côté boobu lañ ko fi jëlee. fii ci biir kër gi. si biir gi lañ ko jëlee waa. nit ki naka la def ba dugg ci biir gi. Ah, Lolo ñu jaaxal nak loolu mom buñ ko xamone mom ko def na na choono bi yeb duñu dal ñun dal si suba gi mom tok na fi di fo ak mamam ak yaay mi ngi si wañ bi di togg man ay côté 9h la wacc dugg si biir kër gi ba duggé dugg sama biir nek yoni sama dom, ne ko demal jëndi ndékki xalé bi ba daw di jëndi ndékki la am ku mu tassanté suñu benn dekkando mu ndai ko nday Aida ah, am na ku ko jël mu ngi dem ak moom fekk sama doom sama rakk bi mu ngi yore caabeem pour xëy mu ne leen mu ne daf koy nëbbatu léegi nag mu naan sama caabi atelier sax laa gisul am euh, baakilaam ne ko Aïda de mi ngi yore sa caabi mais am na benn femme bu ko for bu ko yore mi ngi dem xaw ma nag mbokk yaayam la wala xaw moo tax mënu ma ko wax dara mais kooku moom xàmmeewu ma ko si kër gi léegi nag xale bi daal di bàyyi lu mu doon def daw topp ba mu demee ba ci kalandoo yi mu ne ko fan la jaar mu ne ko côté kalandoo yi mu dem ba ci kalandoo yi xool-xool gisul dara mu dawaat dellu siwaat si kër gi daal di fekk yaay si waañ bi ne ko umpaañ Aida gisuma ko fii de te bàyyi kilaam nee na am na benn daam bu ko jël mi ngi xees kol bu zone mu ne ko Aida non non mi ngi si maamam ñu daal daw sam papa ne ko Aida ana Aida mu ne non Aida a noonu yore bal bi lii sax ma yore moom moo ko sànni sama kaw ñu xool ba sonn gisuñu kenn ñun ñëpp man sam papa ak sama beneen dëkkandoo ñu daal di daw dem ba ci place Njuula Mbay restaurant bu muy jaayee xale bi ne dafa jàdd koñ ñu dem ba ci kalandoo yi ñu xool foofu dem nañ ba côté Dominique xool foofu yëpp gisuñu kenn si leen dellu si waatee nag si kër bi commencé nag def recherche ku nekk naan Aida dem na Aida dem lu tax man wër bi gaaw nga xam ne dalay leen a du réer ndax comme nit nee na dafa am ku ko jël te aw na nii kooku mënoo ne dafa dugg si kër ndax moom du génn du génn du génn moom yaayam dafa voyagé woon yóbbu ko ba mu nekkee xale ba mu ñëweek léegi si kër gi matagul weer du génn miinagul sax waa kër gi bu baax at ak genn wàll lay toll man maa ngi defoon ne sax feragul mais ndekete fer na xam nga xale yi léegi dañuy gaaw a feral li may wax yëpp dama ne feragul mais nee neen fer na waaye ata genn wàll lay toll wax dëgg yàlla xale la. vidéo yoo xamante ni que identifié na fi ko ndaw si euh, gàddoo di dem ak moom. waa ba ñu dawee topp ko ñu daw topp ba ci kalandoo yi comme euh, xale bi nee na gis na ku ko gàddu kon léegi ñu daal di dem am suñu benn daam fii. borom restaurant bi daan ne dem leen ci borom cuuraay bi ndax ñoom am nañ caméra surveillance ñu xoolal la en tant que bàjjenu gox soo demee xëy na dina la may ma ñëw nuyu leen daan leen ah ñun de dafa am suñu doom bu ñu jël léegi fii ci buntu kër ga léegi nag nee na nii la jaar ma leen doon ñaan nag bu ngeen ñu mayoon ñu ngeen xoolal ñu seen caméra surveillance yi ba xam bu dee jaar na nii dinañ ko gis waa ji na ma loolu amul benn problème daa di xool moom it ne caméra am dafa fulu ndax bis boobu dafa doon taw ay 2 heures du matin mu ne caméra bi dafa fulu si leen duggee nag ci banque bu mu jàkkaar lool muy Cofina ñu ñaan ko ñu fekk fa macha allah waa ju baax nag mu am dal tool yoroo jukkoy jaboot daan ne loolu kañ lañu ñu expliqué mu daal di jël suñu numéro nañu léegi dem leen luñ ci xam rek dinañ ko wax si la ko xool nag ñu gis nag femme bi nu mu gàddoo xale bi ak xale bi nu mu expliqué ne dafa kol kol bu zone tamit même kii mais caméra bi nag leerul bu baax si lu ñu gis ñun leerul bu baax mais gis nan daal xale bi nuñ ko gàddoo di ànd ak moom di dem. fi muy da ngeen nekk situation d'inquiétude ndax xamu leen xale bi sooram actuellement lan macha allah loolu rek moo ñu jaaxal nag wallaay la azim dañ ko defoon au ne xëy na dafa am ku ko nëbb wala dara ndax bis boobu dafa fekkoon papaam voyager si lan woote ma euh, euh, ne ko ah Aïda da neen dañ koo jël xawma ma problème bi nag problème bi mooy bu dañu yaakaar ne sax xëy na dañ ko nëbb wala dara mais boobu ba léegi mënuñu see dégg dara lu dul caméra surveillance bi lu luñ si gis femme bi yore ko te ñun femme bi man xàmmewuma ko wax dëgg yàlla xàmmewuma ko ndax caméra surveillance yenn saa yi comme man mii niñ may wanee téléphone yi suñu mbokk yëpp sama soppe yëpp ku ma gis di nga xam ne kii ulmata la waaye kii man day Oulimata gisaguma xamuma kan la ah, dama yaakaar ne xëy na bu ko am ñu ko xam buñ ko gisoon dina ne kii diw la kon nu may gisee ne kii diw la ah xanaa buñ ko gisee dinañ ne kii diw la ndax borom mbokk mënul nëbbu borom mbokk mënul nëbbu mais nag xamaguñ ci dara daal wax dëgg yàlla. mooy coono bi papaam nelawutul monde bi yëpp laay wax. monde bi ndax duma wax sama famille rek ndax fu mu nekk ku ko xamul sax mi ngi jooy ku nekk mi ngi may woo amul fu nit dul woote léegi am na ku ma woo États-Unis la nekk mu ne ma man soxna si man Aïda Diagne mi damaa xamul lu ma bokk moom rek wallaay la azim te xaw xaw ma ko man ak papaam nag bokk benn baay ma yar nag si kër gi xamuñu dem xamuñu dëkk xam nga ne ku sa papa xamul dem sa yaay xamul dem do xam dem macha allah. ah wa yon ñi ngi ci liggéeyam ñi ngi seen liggéey rek ñi ngi xam nga lool kilifa yi ñoy dem man moom gennaguma kër gi sama kilifa ñoy dem ak sama dom ak sama euh, rak ñi ngi dem ah ñi ngi si am yaakaar ci ñaan yalla yi comme caméra bi nit ñaa raxas di gëna am lu leen leer ah ñi ngi ñaan si yalla yalla katanal ñu leral ñu yalla mu mëna tay leeral yal nak ñu leeralal ba suñu doom ji jam, ci jamm mu am jam mu allah ndax xale mominu yalla la minul kenn xamul kenn luddul yaayam appar yaayam si kër gi sama benn doom bu ndaw la fi mëna tak tuuti ñu ngi lay ñaan nang si yalla, bu fekke da nga doon neub wala da nga amoon dara loy di ñu la si dara wutal foko ko rek boba bu jooyee dekkando dina ko gis indil ñuko ko macha allah ngi la koy ñaan si kàttanu yalla, ñu ngi koy ñaan ñëpp sonn nañu macha allah ñëpp sonn nañu. moom mi ko jël jigéen la yaay la peut ah xaw ma ndax yaay la xaw ma de waaye daal jigéen la te jigéen moom jigéen la ku am doom war na ko yëg ku amul doom war na ko yëg ñu ngi lay ñaan nag nga indi ñu suñu doom macha allah ñu ngi la koy ñaan si kàttanu yàlla nga indi ñu suñu doom ni nga defoon ba jël ko. boko munta def ba indi ko wutal foko tek rek ñu jël suñu doom macha allah ñu ngi la koy ñaan ci kàttanu yàlla di ñaan mbooloo mu julit nak ñu ñaanal ñu ci yalla depp ko ba mu wat ko macha allah jërë ngeen jëf. merci nañ si yéen macha allah Yalla na leen yalla fay. jere ngeen jëf yeen sonn ngeen allah mais choono bi ngeen daj ci li yalla na leen yalla jàppale jappal ku lu jël ba mu yam fi nak ndax li du première fois du première fois ndax lu dal lépp lu metti rek ba mu dal la yow mu mu dal nga xam nga ko léegi xam nañ conséquences yi ba mu metti metti fan yëpp ñu ngi jooy si ku ñu rey lii ñëw suñu kër muy lu ñu jaaxal lu masta am nag suñu famille guléet waaye nattu yàlla la nag yal na ko yàlla teggeeg jàmm si barke Seydina Muhammad